ginnaaw bi ñu santee yàlla julli ci Seydina Muhammad sangu-sangu yi ñu ngi nuyu képp ku fi nekk di ñaanal suñu waay dawlu yi yàlla yàlla yërëm leen te yeexi ñu ñun ñi fi nekk ñu ngi ñaan yàlla suñu borom bi yàlla nañu may gudd fan ak wér fekke lépp neexul amul waaye yàlla nañu yàlla may ñu fekke lu baree baree bare di nuyu nag mbooloom képp ku fi nekk rek ñu lay nuyu di nuyu nag di ci jiital waa di nuyu monsieur le président monsieur Abdoulaye Mamadou Guissé di nuyu monsieur le directeur chargé des programmes Sonia Niane di ñaan di nuyu monsieur Moussa Ba membre conseil administratif di nuyu nag les artisans di nuyu les femmes de développement di nuyu les artistes di nuyu Grand Yoff yëpp di nuyu jigéen ñëpp ndax nag maa ngi nuyu góor ñi mais jigéen ñi fi ëpp ndax bu ñu wootee jigéen ñi ëpp bu ñuy def jigéen ñi ñoo fay gën a bare te man nag nee nañu jigéen ñi laa faral te bañuma ci dara jigéen ñi laa faral maa ngi nuyu jigéen ñi bu baax a baax. les artistes présent. léegi laa koy fàttali ci bunt bi man formation bi ma njëkk def ak AMS c'était en 2006 moom mii moo ñu fa yóbbu woon ak si kon kii dundam yépp daf ko jël consacré ko sur les artistes di jàppale les artistes et les artisans kon encore une fois nañu ko may loxo parce que projet bi bi mu ko amee mënoon na ko jël yóbbu ko ci ay mbokkama ah. wala mu woo ay xaritam wala mu yemale ko pikin parce que Pikine ku ne xam na ni c'est une grande banlieue mais daf ko wërale Sénégal gépp ni képp kuy yëngu ci aar ak képp kuy femme de développement ak képp kuy ñaq jariñu pour sa njaboot na nga ci bokk ba am foo dëkk ak sa njaboot kon jaaraama monsieur le président ak ñi mu àndal ñëpp monsieur le directeur ñaan ak monsieur Ba sànq nag Rouba Seye dafa ma woo parce que ñoom ñii ruba sànq la leen wax ni papaam dafa dese décédé ñoom sax dañu ñu woon nañ ko fomm mais ruba ni leen mukk comme woo naa nit ñi jigéenu Grand Yoff artistes yi artisans yi ñëpp ba pare xalaatuma koo fomm ñëw leen ñu def ko parce que toogaay amatul te ku ne xam ne ni askan wi dañoo sonn ah ñun ñëpp dañuy loué fay location dafa metti weer ak moroomam dañoo jege boo fayee balaa la 18 sax dootoo nelawati guddi parce que bailleurs yi amuñu xol dañuy ñëw taxaw la nga war a fay war a dundal sa njaboot kon ku ñëw ni la kaay ma jox la foo dëkk état fas yéene la koo dimbale jaarale ko ci jëmm ji ah jaaraama ah jaaraama voilà donc nag maa ngi sant di gërëm tous les artisans de Grand Yoff tous les artistes de Grand Yoff parce que ku ci nekk jóg nga bay ci sa waar te ñun aar rek la ñu am te comme ni ko suñu yaay awa waxe Aminta waxee léegi ku ne xam ni aar secteur informel la ñun état lim ñu war a jàppale yëpp jàppale wuñu ko depuis combien d'années ñoo ngi xeex sur la copie privée pour artistes yi mun a am statut de l'artiste mais amuñu ko kon ñun dañu sonn kon ku jug pour jàppale ñu dañu lay wax jaaraama moo tax président ñu ngi lay waxaat encore une fois comme ni ko ñëpp waxee loo bi ñu am baax na mais booñ ci doon loon ñu jël parce que artistes yi ils ont dans le besoin ils ont dans kon donc pour ne pas monopoliser loolu laa ne woon naa ko sànni di ko wax au nom de tous les artistes di gërëm aussi site internet yi fi nekk ak ñi teew assistance bi yëpp encore une fois merci beaucoup cheytaan rajim laa xawla wala quwwata illaa billahi alil azim gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci Seydina Muhammad sang-sang yi maa ngi nuyu képp koo xam ne mu ngi teew tey ci saal bi maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm ci seen teewaay du jéggalu tam ci toogaay bi ndax yàgg na waaye defe naa ni jar na ko di nuyu suñu gan ñi nag bala may nuyu suñu gan damay nuyu sama yaay Nafi Touré mi nga xamante ni tey lu ñu mën ci secteur bi wala luñ ci xam yàlla ak la comme li Madior wax yàgg naa daw indi ngir Grand Yoff tay yaay tey lu ñu xam ci secteur bi wala luñ ci am ba Pape Madiop monsieur le maire dénkuñu secteur bi yàlla ak sa jëmm la ñu ngi lay nuyu bu baax ma bëgg na ma ko ñëpp tàcc na ñëpp jóg nag tàcc ma sama yaay waaw ñu ñëpp jóg na ñëpp jóg la grande coiffeuse ndax toujours damay wax ne bi àll bi lëndamee ndey yow yaa jàll ba jël tey coiffure teg ko ci sa grand yow ba ñëpp tey di ci tedd ubbi école di ci bay sa waa di ci def social ba am doole xam naa ci dara di nuyu sama mag Aminata Kane mi nga xamante ni moo yor euh, mooy présidente nationale certification département de dakaar du nuyu nag monsieur Guissé monsieur Guissé ñu ngi lay nuyu bu baax ñu ngi lay nuyu bu baax di la jox sa wàccuwaay di nuyu monsieur Ba di nuyu monsieur Ba bu baax a baax a baax di nuyu jàmmeñu kii doomu ndeyu labalaana bi ñu ngi lay nuyu bu baax a baax monsieur Sagnane ñu ngi lay nuyu bu baax a baax monsieur le président dañ lay nuyu bu baax y a parce que nit am na alalam yóbbu ko feneen nit am na alalam dugal ko feneen mais yow fi nga visé foofu la ndax nit mënul xëy suba ba ngoon te solul daray artisan laalul daray artisan kon yow boo visé artisanat visé secteur culturel xale yi dañuy génne ay cassette sànq maa am na koo xam ne ngi fii génne na cassette dama ni ko woon mu def prestation mais comme salle bi day moo tax ñu bàyyi ko xale yi dañuy daw pour ñu am ku leen ku leen encadré ba ñu taxawal seen clip day metti lool tey buñ ko amee di daw fu ne ci dëkk bi dañuy dem ba dañuy dem ba màgget te duñu am fu ñu dëkk tey yow lii nga def dañ lay sant di la gërëm man de ba ma ko yëgee dama ni yàlla su fekkente ni am nañ dara ci tariixa cheikh yàlla nañ toog ak jëmm ji ba mu jàppale artisanat ak jëmm ak culture yàlla nangul ñu ko tey nag waaye ki tax mu nangul ñu ko muy Rouba Seye muy Rouba Seye l'ambassadrice ma bëgg na ko ñëpp wax sa mbaaxuwaay du wàññi dara sa mbaax Rouba ku ne xam na sama diggante ak moom ku ne xam na ne ay cheikh lañ tey bu fekkente ni jox nañ ko lu toll nii def ko ambassadrice keroog si salle bi la ma wow ne ma madame le maire man ko naa mu ne ma sa coono jeex na nommé nañ ma léegi ambassadrice ma ne ko alhamdulilahi rabbil alamin bi mu demee këram yi ñu toog waxtaan te ku xam keroog bu nga ñëwee sant ba xam ngeen ni séddale nañ ko nu mu gën a rafete parce que dañoo viser secteur artisanal ak secteur culturel bi ñu wootee it équipe baa ngi ni muy Bakhayokho muy Lamarana Diallo muy la grande lionne Awa Sissoko ak Aminata Kane nii maa ngi leen di kenn bu nekk ci turam ak santam di ñu man maay Dame Samb porte-parole Omar City bi Mamadou Guissé njiite ak suma ah, Omar City nag dafa ñëw pour dimbali askanu Sénégal li tax mu dimbali leen mooy jëmm ji toog di Mamadou Guissé ba muy jàppale artistes booba projet bi ñëwagul ki taxawul fii léegi wax na ko ba muy jàppale artistes yeeg artisans yi booba projet bi ñëwagul muy nit koo xamee ni bëggul a seetaan kenn muy sonn bëggul a xool kenn muy sonn ku xam location ni mu mettee ak weer ak moroom na mu jege yoo mu jël projet bu toll nii ànd ceeg ay partenaire am ak ñi muy liggéeyal fii ñuy somaam mi ak ba ni projet bi doyewuma ko dara lu dul askanu Sénégal ku ne am foo dëkk kii kenn mënu koo fay bërki démboo njaay ñi ngi woon ca dóoj yi nii lañ ko fa defee tey ku nekk dinga am ñu def ko bërki démboo njaay ci Parcelles Assainies def ko Pikine tey jii ñu ngi fii ci Grand Yoff te it nag kenn kenn koo xame ni que rek bindu nga fii billaahi di nga am ci kër yi lamaraan kenn laaju la ci benn dërëm kaay dëkk kaay ñu wutal la foo dëkk te doo ci fay benn dërëm wa ku la loolu mën nga koo fay ah mën ngaa fay kooku waaye tàccu leen gisee kii askan wi rek ko ñor Sénégal rek ko ñor projet bu toll nii nit mënu koo def te àndu ceeg état président Macky Sall ba muy jël projet bi di ko teg ci loxoom xool na ko sonn mais gisul kenn ko ko doy ku dul jëmm ji toog Ousmane Sonko ak Diomaye président bi nu toogee dañ ko lu président Macky Sall defoon duñ ko dindi ndax askan weenu ñor ak Sénégal yaa koy continuer kon jëmm ji toog lu mu leen wax dëgg la na lu mu leen wax dëgg la jàppale leen ni lii mu leen di wax lu am la lu dëggu la ndax kenn mënut a nax kenn ay kilifa rek a fi toog ay responsable rek a fi toog ay borom kër doo ko fi toog kenn mënuñoo nax bu duloon dëgg du ngeen bàyyi seen yi yitte yépp ñëw toog fi képp ku sa tur nekk nga bindu fi dinga nga am ci kër yi te kenn laaju la ci benn dërëm weer wu jot ñu laaj la junni ndax logements sociaux yi ñuy joxe solaire lay doon solaire solaire lay doon de junni ngay joxe weer wu jot pour participation ci solaire bi jar na ko wala jaru ko jaru ko ah, tabaxal may la kër tabaxal la ko ba mu àgg ni la weer wu dee nga joxe junni jaru ko wala ñu génne say bagage ci biti génne la waaye tàccu leen Mamadou Guissé xale aljanna wala ci kuréel Muhammad rasulillah jéggal ko ay bakkaatam yokkal ko ay baaxam loolu moom foofu la ñuy jiitoo donc lu ci def des mooy que ne kontaan nañu vraiment gis nañu ko vraiment y a une mobilisation te li ngeen wax bu baax mais c'est vrai que li ñuy ñëw Grand Yoff amul benn quartier bu ñu ko def ñun dañoo dem sax ba man dama sax ragal bi ñu mënee sax dañuy defar même salle bi dama am la chair de poule parce que dama ne est-ce que ñi ñi dañ ñu gëm après amuñu benn quartier boo xam ne def nañ ko plus de deux fois mosul am Grand Yoff déjà lu mu ci am boo leen boo leen ko xaymaa c'est dix mille logements vous avez mille cinq cent logements te Sénégal bokk ko lu ci des fan lañu koy war a def donc on va voir à court terme nous sommes à dix mille logements mais à long terme nous sommes de deux cent cinquante mille logements euh, bañuñu bu doon suñu sago fu ñu ñëw ñu enrôler ñëpp mais dafa am loo xam ne dañ ko il faut ñu defee ko noonu sinon dara du baax mais incha allah bu ñuy jëlaatee beneen cycle bi on va revenir dina tax yéen seen bopp ngeen am confiance ci li ñuy def ñenn ñi tamit am ci xel kon loolu la amoon li may tontu pour le moment euh, par rapport ak augmentation ma ñëwaat nag ci Omart euh, tur bi gàtt na mais tur bi yànj la bi ñuy créé Omart kii moo ko créé di président Abdoulaye Momar Guissé nekk un ingénieur en art et culture ak banque finance bu ñu xoolee Sénégal ñi di jàng yëpp du ñu nangu jàng aar ak culture du ñu ko jàng tuuti lañu ciy def boo xoolee ñu gën a bëri cadre yi gën a bëri ay yeneen la def mais moom bu mu génnee Sénégal di jàng ji dafa ne man su ma demee aar laay jàng ak culture parce que amul benn réew ci àdduna boo xam ne def am nga développement fekk basé woo ci sa culture mun naa leen jox un exemple sur la Chine c'était le pays le plus pauvre du mais bi ñu bëggee développé dañuy delluwaat ci seen bopp ñu ne ñun on va prendre la culture comme référence lépp lu ñuy jël ci sunu biir bu ñuy làkk ci sunu biir bu ñuy bind ci sunu biir bu ñuy solo ci sunu biir bu ñuy war ci sunu biir loolu moo leen may développement loolu Thomas Sankara doon incarné mooy la culture te yaakaar naa ba tey dem na mais burkinabé yi koo ci gis rek nga xam ne kii burkinabé la parce que soo colee ngi boo ko nga xam ne kii burkinabé la donc culture mooy lépp mu jàng art ak culture nekk ingénieur en art culture boo xoolee y avait que le Paul Sédar Senghor qui avait eu ce mu ne nag su ma ñibbisee Sénégal art ak culture est dina ma doy mu ne na xaar ma dem defi banque finance ndax ma mun leen accompagner c'est ce qu'il a fait mu delluwaat ay at di jàng ba mu am licence am en en finance il est revenu donc mu nekk un ingénieur en agriculture en même temps nekk un financier bu mu ñibbisee en 2000 fekk fi président Abdoulaye Wade accueillir ko def ko doomam ñuy ànd ci ay xel ñuy ànd ci ay xalaat bu am lu mu am lu mu tëral mu ubbi benn banque bu ñu naan Ecomart au niveau de la euh, au niveau de Pikine yaakaar naa képp artiste kii wax na ko léegi cinq cent mille cent millions par année la doon dugal pendant seize ans premier quinquennal bi jeex ñu revenir waat kan moo nekk kan moo nekkoon partenaire am Euh, il le les plus grands artistes un grand peintre Jacques la tudd c'est un français ma c'est actuellement boo xoolee France parce que da ngeen ne amu leen foo leen nekk ñi nga xam ne am nañ kër te ñëpp ràññee na ñoo xam ne am nañu kër ñooñu bokkuñu ci néew di doolee yi kese surtout artistes yi parce que les 70 pour cent des logements c'est pour les artistes et les femmes de culture les 30 pour cent boo jëlee les 20 c'est pour les handicapés les 10 c'est pour la population démunie moo tax nag ñu ne Sénégal toutes les femmes sont des artistes lu tax laaj leen ma lu tax très bien le premier art mondial c'est l'art culinaire mooy togg c'est le premier art du dëgg kon vous vous vous êtes toutes des artistes moo tax on vous a favorisé par rapport ak art boobu ku ci mën a togg mën nga lëtt ci nga bokk ku ci mën a lëtt mën nga def transformation ku ci mën def transformation am nga leneen loo xam ne mën nga ko def mooy rab defal ay sër sër rabal yi ngeen di ci aar la bokk kon toute la population sénégalaise est artiste kon ñun duñu bàyyi kenn su ma delluwaatee nag ci logement yooyu njaboot bi amul fu mu nekk kër gi xat na ñaari néeg la te da koy loué chaque fin deux cent mille cent cinquante quinze mille li ci gën a néew néew soixante la ñu jox la benn kër boo xam ne un artiste ou bien un citoyen de toi parce que xam ne Sénégal la superficie d'un terrain c'est cent cinquante mètres carrés trois cent mètres carrés lañu leen di jox lu waral loolu dañu ne comme que art moo moo lalu art bi moo nekk ci kanam les artistes ils ont besoin d'espace soit mu nekk studio soit mu nekk salon de coiffure soit mu nekk unité de transformation mbaa mu nekk leneen loo xam ne art bi daal woote na ko au lieu nga def di louer nekk beneen charge dañ lay jox kër alléger la sa charge euh, boo gisee ma wax kenn du ko luwee boo demee ba njaboot ji commencé barkeel kii barkeel na génn bàyyi fa ñeneen ñi ñooñu tamit bëgg am keneen koo xam ne barkeel na kooku tamit génn bàyyi fa njaboot ba ilaa yow mi di tant que loolu mu ngi am yaa moom kër d'ici mille ans yaa moom sa kër mais lu luy problème bi rek mooy ngay jéem a euh, luubal ngay naan da ngay def ay genre comme ne sama mbokk séeréer yi ñuy def waaw jënd tax fanaan ci saret loolu moom duñ ko nangu kon nag loolu coopérative moo koy déterminé kii wax na ko sànq cinq mille francs ndox lu tax parce que forage la du du SDE non non cité bi c'est une cité autonome et indépendante qui sévit aux normes mondiales dafa xam ne cité ya boo déggee cité dafa war a am ay normes am heure d'entrée ay heure de sorti boo xasee ba guddee àll ba vigile bi balaa ngay dugg kër ga il faut mu xam ne ndax yaa ko dëkk parce que doo leen xam yéen ñëpp bu dee da nga am gan gan bi fekkee dafa tardé ñëw bu fekkee mënu la jot ci portable ci mbedd lay fanaan dafa du dugg ci cité bi loolu loo am na loolu mooy cité yoo xam ne moom lañ leen war a jox courant bi solaire la énergie renouvelable on a assez de soleil jarul ñu def ñu jël secteur yu mag yi te soleil mun na def lépp loo xam ne courant mun na ko def te amul interruption léegi nag pour li ngeen di fay ma jox leen comme exemple plan Jaxaay Jaxaay bi ñu ko commencé bi ñu ko tabaxee on l'a construit en trois ans ñetti at lañ ko tabax bu ñu ko tabaxee ñetti at nit ñi commencé dëkk un an trois mois la ñu dugg ñu ñu baal leen loolu mooy logements sociaux lu tax parce que le bailleur day xool seen volonté ak seen pas-pas ak li ngeen di wax ndax dëgg na ci yéen léegi nag il y une coopérative boo xam ne ci yéen dañ ci jël jël naa cinq personnes yi déjà ñu ngi fi ñoom ñooy bokk de cadre dañuy bokk ci cadre administratif de concertation bi ñoom ñëpp bu ñu dajee mooy yi ñu enrôlé ñoom ñu définir ñaata lay nit kii di mun a fay par mois parce que dañu évaluer xool ki gën a néew doole lan la mun a fay foofu la ñuy basé wu ki doon fay cent cinquante mille francs bu ñu la nee vingt cinq mille trente mille kay xanaa di nga mën a fay te yaa koy moomal sa bopp. ku doon fay cent mille francs bu xanaa loolu dina la ko jaral ku doon fay cinquante mille francs bu ñu la nee dix mille kay xanaa dina la ko jaral. kon du ñu ñooy définir c'est pas nous c'est pas à nous de définir mais c'est à la coopérative de définir les modes de paiement ma delluwaat tuuti ci ginnaaw ci fiche yi ngeen doon remplir dañ leen ci bindal no maanaam sant bi du la ngeen bind nga def prénom mooy tur date et lieu kañ nga juddu ak foo juddu région ban ban région nga bokk yéen ñëpp Dakar nga bind yaakaar naa très bien ñu bind ci numéro de téléphone secteur d' activité culture ou art ñu def ci en cas de décès maanaam ku nit ki bu fekkee dëddu na àdduna kan moo koy remplacer kaddu googu daf leen war a yee ci ñaar bu ñu fi jógee suba rek ngeen ne rogo ana sunu déedéet loolu na leer nañ décembre ba léegi ñu ngi amul benn mois boo xam ne dafa ñu a à 5 enrôlement ou bien 6 enrôlement par ordre d'arrivée lay doon maanaam ñi njëkk a bindu ñoo njëkk a am leer na njëkk a bindu ñoo njëkk a am on va construire les logements témoins d'abord ñooyu bu ñu génnee ñu jël premier loo yi ñu nga xam ne ñoo njëkk a bindu noonu la ñuy doxalee ñu keroog ñu egg tey le 9 non le 7 juin 2024 donc à partir de 9 décembre 2023 enrôlement yi ni mu doon doxee noonu lay doxee ba keroog bi ñu egg ci seen loo est-ce que comprendre nga bi boo gisee ñu bind loolu en cas de décès parce que mun nañu tàmbale yëf yi am ko génn àdduna mm-hmm. mais on va recours à la personne bi nga xam moom la joxoon du dëgg ñun ñi di wax sax ñu ngi ñaan yàlla ñu teewe ko parce que lépp ci loxo yàlla la bare la li fi président bi gën def te di ko inauguré du dëgg dëgg lu koy dëgg ñu nag dañoo bëgg li ñuy tàmbali ñu inauguré ko ñu ànd ak yéen ba ñu woo leen fi ngeen seen dëkkuwaay lu ci def rek mooy que gëm-gëm dafa baax même bu doon nax la ku la ne kaay may la kër sargal na la te yaakaar naa bu dee télévision rek am nañ fu ñu war a dem ñu gis ñu lu dul jàkkaarloo ay télé waaw noonu loolu indiwuñu fi li xam ne président gisee ak mbaaxam ak yërmandam ak pas-pas bu mu amal réew mi ak njàngam bu mu jàng pour teral Sénégal def lu mu def. moo tax tey fi ñu toog ñu du ñu rus parce que xam nañu am na lu mu def am muy wax lii avant muy def lii tey dafa am lu mu def loolu rëy lu ëpp sax logement sociaux yi te mu ngi jokkoo ak président ne tey def ko ne bu fekkee bu nga am bilan loo xam ne fekkoon nga mu baax da koy bàyyi mu que si si bilan yi lay bokk te naam boobu am nañ ko ba pare te ñun on est des parce que ONG la li nga xam ne état moo ko defal boppam mën na ko arrêté mais li nga xam ne ñoo ko moomal am suñu titre foncier dañuy accompagner mbaa nga bàyyi mais lu ci des moom dañuy continuer te xol bi ñu am ñoom it xol boobu la ñu am parce que d'après tous toutes les causes et les échanges yi mu def ak président on sait que ils vont accompagner ils vont faire. di tàmbale ci bisimilah rahmaani rahim di nuyu ñëpp di sant ñëpp euh, di jiital si nuyoo bi nag euh, maire euh, Grand Yoff Mademba Diop ah. Madiop Madiop Diop di ko remercier. Euh, ci c'est la troisième fois ñu ñëw fii te loolu daanaka bëriwul euh, endroit boo xam ne ñëw nañ fa ñetti yoon te boo boo boolee lépp directeur des programmes nee na ma mille cinq cent logements joxe nañ ko fii Grand yoofu ci salle bi donc donc di wax ne rek mbégte rek laay am pour ñëwaat fii te aussi naan yàlla ñëwaat fii ñëwaat fii Euh, parce que comme ni ñu ko ñëpp waxee rek Grand Yoff maanaam lieu la boo xam ne demande si logement sociaux dafa important fii te loolu aussi ñun bàyyi nañ si xel ndax projet bi loolu ko tax a jóg maanaam euh, seet yan lieu de concentration yoo xam ne population bi bëri nañu te dëkkuwaay yi euh, jafe na location bi chair na bailleur de fonds yi nga xam ne ñooy loué seen kër amuñu raison garder ndax chaque fois bu leen état waxee dama ñuy wàññi ñoom dañuy bañ ne duñu wàññi ndax ciment bi lépp ñoom ñoo ko jëndal seen bopp donc tey solution bi am pour alléger euh, famille yi euh, euh, kër yi ak borom kër yi te li ci ëpp nag jigéen ñi ñoo ko gën a soxla ndax jigéen ñi ñooy sëy ci biir sëy yore location di daw dépense jigéen ñi ñooy def bu sëy bi tasee ñoom ñooy téye xale yi dem luwe ji di ut lu ñu dundal xale yi di ut fu ñu dëkkal xale yi donc donc projet bi euh, bu doxee ci culture ak développement ci jigéen la jëkkee soo si artistes yëpp ay bëri nañ ci jigéen bëri nañ ay góor mais aussi projet bi dafa dafa nekk un projet social bu nekkee un projet social mais demande sociale bi lay jël en contre moo tax Euh, bu neexee yàlla amul dara lu nit di tiit wala lu muy ragal waaw dama bëgg dama bëgg ngeen dalal seen xel parce que logement yi bu neexee yàlla ñëpp a ci am parce que parce que avant may expliquer sax nu mu démarré damay nuyu euh, Lamarana Diallo ci tuyu Ndeye euh, Rouba Seye di wax que ne Rouba ñu ngi koy jaale waa juróom jooju génn àdduna bon comme que directeur des programmes ak euh, Moussa Ba chargé membre du conseil d'administration jot nañ def ay ñaan ak lépp je pense que euh, li gën a am solo rek mooy ñu jublu ci liggéey bi di ko ñaanal mu dem àjjana yu gën a kawe ak ñi mu fa fekk ndax ñun ñii ñëpp am nañu koo xam ne ku la jege la mu ngi foofu donc ñu boole ñëpp rek ñaanal leen ci jataay bi donc di remercier bu baax Rouba Seye ci woote bi mu def euh, di xamal ne artiste la droit am la ensuite ambassadrice logement sociaux yi la mais aussi di remercier Lamarana parce que Lamarana moom moom ci boppam symbole la ci artistes yi nga xam ne tey dañoo servir culture Sénégal te tey te tey soo xoolee li ñu servir culture Sénégal li ñu defal euh, Sénégal en tant que ñoom des ambassadeurs de la culture mais tey euh, état Sénégal delloowu leen njukkal te loolu man bokk na loo xam ne OMART Sénégal OMART day xeex loolu OMART day xeex pour artistes yi ñu jox leen seen gëdd OMART day xeex pour artistes yi ñu leen di fay seen droit d'auteur OMART day xeex pour artistes yi kenn du ci dem ba màgget di yalwaan te loolu ñu gis Sénégal gii politique culturelle bu ñëw état bu ñëw résime bu ñëw condition artistes yi même condition la rek mooy ñu ngi ñu ngi taataan di daw fii gauche di daw droite pour lu ñu lekk lu ñu naan lu ñu jox seen njaboot ay ñaari artist ñooy siiw yore ay millions ñaar walla ñett boo dajalee musique bi théâtre bi lépp boo ko dajalee ay ñaar ak ñett walla ñeent ngay compter ñu ne la ñii mënal lañ seen bopp ba ubbi nañu ay société ci culture bi ñu ngi ciy jëriñ ñu ngi ciy lekk ñu ngi ciy naan mais boo weesee loolu ñi si des ñëpp sag la ñuy doxee boo leen gisee yenn saa yi dañuy rus dañuy jël taxi dañuy nëbbatu jël taxi kenn amu ci oto kenn amu ci kër looloo tax projet bii jóg projet bii dafa jóg pour suturaal artiste Sénégal mais projet bi dafa jóg aussi pour ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi nekk dans le domaine social di souffrir amuñu fu ñu dëkk projet bi jël leen en compte ndax OMART c'est la culture et le développement donc su loolu weesoo may nuyu sama directeur des programme monsieur Soma ci liggéey bu rafet bu mu def parce que daanaka liggéey bi yëpp moom la parce que ñun ñu ngi ci kaw ñu ngi dem ci dajeek partenaires yi yenn saa yi sax da ngay gis nit woo ma ne ma voilà ñun dañoo bëgg ci logement yi mais su ma ko defee feedback bi ci moom mu ne ma bon diw euh, présidente association jox nañ ko cinq cent wala jox nañ ko trois trois cent mais loolu nag euh, pour ngeen xam ne aussi comme ni mu ko waxee sànq ku jiite association boo ñëwee ñu jox sa association sa présidente ñëw ñu jox ko trois cent wala cinq cent mais yow mi bokk ci association bi da war a tënk foofu mais bëgg a laaj loolu maanaam ormaloo sax ki jiite association parce que association bu ko nit jiitee dangeen di topp si ginnaawam bu ñu leen di dolliwaat sax ñu ñëwaat ba ci kooku ki ki ñu joxoon trois cent wala cinq cent ñu ne ñu ngi leen di dollilaat parce que loolu moo gën a rafet sinon ñun aussi suñu liggéey day xaw a ñaaw waaw parce que rafetul euh, nit jiitu euh, ñu fal ko mu jiitu yow nga nekk ci biir nga ëlbatiku di décider si ginnaaw ki ñu fal rafetul di remercier monsieur Moussa Ba moom il est conseil départemental de Kër Massar mais il est membre du conseil d'administration euh, d'administration de Omat City parce que logement yi daanaka ñun liñ ci mun mooy ut jëli financement yi indi euh, defar plan architectural yi xool conditions environnementales yi nga xam ne yépp c'est adéquat pour que euh, ndóol précarité jeex loolu lu ñu mun a def mais li si des liggéey bi ci yéen la lu tax ma ne ci yéen la mooy fu nekk euh, présidente wala président bu nekk buñ la jëlee dañ lay laaj juróomi nit yoo xam ne ci lañ leen di boole ci conseil d'administration bi donc conseil d'administration day am bu national am département yi aussi ak communes yi loolu yëpp pour mun a am information yoo xam ne gestion bi day transparente liggéey bi day leer ndax nit buñ la dénkee dara soo bañee ëllëg coow am ci boole ci ñëpp ñëpp liggéey ci luy dugg wala luy génn ñëpp décidé ndoo ko bu boobaa kenn du la woo Cour des comptes wala di la woo euh, nag mais boo jëlee mbir ubbi compte def sa xaalis yow kes sa turu bopp di ko gérer di dugal di génn bu boobaa nag wala Cour de contre woo la moo tax nag projet bi lépp dañ ko delloowaat ci bénéficiaires yi mooy ñi nga xam ne ñoom ñoom moom kër yi bu paree ñooñu la ñuy def ci conseil d'administration bi ñooñu ñooy liggéey heure bu ñu leen woowee ñooy ñëw toog daje ak direction Omart City waxtaan ba vraiment deux cent cinquante mille logements yi ñu bëgg yëpp yàlla may ñu ko ñu wëral ko Sénégal quatorze régions yëpp te defe naa bu amee bu ci yàlla dimbalee ba ñu teg suñu loxo euh, ndóol dina wàññeeku coono dina wàññeeku dem banque di leb di leb te doo mën a fay dina wàññeeku ndax Euh, comme ni ko Soomaa waxee logements sociaux yi euh, du loo xam ne dañ la koy jox tiitul foncier boo xam ne dañ la koy jox suba nga soxla xaalis ne xaar ma dem ma tayle ko pour ñu lebal ma déedéet lii pour dëkk rek la yow boo ci dëkkee ak si njaboot bés boo demee ba yàlla ba nga jëlee la fi sa njaboot ñooy continuer di ci nekk sa njaboot képp koo xam ne rek amul fu mu dëkk si sa njaboot mooy continuer des foofu soo demee nag ba ñu jox la logement nga dem ba dëkk ci ba xëy ne man de jënd naa kër HLM wala SICAB wala fenn dama bëgg génn logement sociaux yi boo ko génnee boobaa dañu xool liste ñi inscrire woowaat kenn jox ko kër bi donc euh, di remercier madame euh, Nafi Touré parce que moom ñëwoon nañ fii euh, mu recevoir ñu tey ñu fekkaat ko fi di remercier soxna amit Kane moom aussi di femme leader di di remercier aussi madame le maire Ndeye parce que euh, man li may wax rek man fierté bi may am mooy jigéen ñi parce que tey borom kër boo gis ñu si bëri boog dañoo dañoo démissionné moo bi il faut ñu ñun ñeme ko wax Sénégal gi góor ñi góor ñi dañoo démissionné jigéen ñi ñoo yore kër yi te loolu loolu loolu moo tax gis nga logement yi à part à part artistes yi jigéen ñi ñoo si ëpp doole à part artistes yi jigéen ñi ñoo si ëpp doole ak aussi handicapés yi parce que handicapés yi ñu si bari am nañu volonté pour liggéey da ngay gis ay handicapés yoo xam ne man euh, mosoon naa nekk ak benn handicapé boo xam ne bindkatu livre la day bind livre te moom du gis dafa bëdi dafa móoru mais day toog di la wax nga koy bind fa orthographe bi sax moo lay wax noo koy bindee dem ba bind livre bind ñaari livre président Ablaye Wade benn bës mu woo ma mu ne ma gisee kaay wuyu si ma point E ma ñëw point E mu ne ma comme que homme de culture nga dama la bëgg a présenter sama benn écrivain boo xam ne am euh, euh, kii la aveugle la donc pour ngeen waxtaan bi ma ñëwee waa ji génne ñaari livre teg si taabal bi di waxtaan ak man ci culture ci bind ak ci loolu donc xam nga ñooñu tey euh, mun naa wax ne société bi état ñooñu la war a njëkk a jàppale état ñooñu la war a njëkk jàppale léegi nag ONG yi ñoom politique wuñu ñun du ñu ay ONG man tey jii mun naa dem def sama activité feneen mais si ONG moom amul politique parce que ñëpp a yem donc moo tax rek may lancer appel à l'État du Sénégal surtout mu jàppale culture bi jàppale acteurs culturels yi parce que tey SODAV mu ngi fii jëri amul njëriñ pour culture bi euh, BSDA la woon ñu changé ko mais ba léegi amul njëriñ tey ñu ngi wax copie privée statut de l'artiste yooyu yëpp d'accord baax na waaye tant que teguñu ko ci norme boo xam ne artistes yi di gis seen bopp di ci di ci ba ñuy gis ne ñu ci yore seen kër di ci dawal ay oto di ci faju loolu la am njëriñ mais bu dee ci wax la yem wala jël benn nit jiital ko kooku weer bu nekk mu jël xaalis bi def bi bukki bii njur bi sàmba mais culture bi toujours day nekk ci difficulté donc euh, li ñuy wax rek euh, mooy di remercier waa Grand Yoff euh, di remercier Lamarana di ko wax ne ñu ngi jaale Rouba Sey papam bi gaañ donc sa loxo lañ koy teg jaal bi ak euh, soxna yi toog fii ñu tedd ñu fi toog nii ak waa Grand fi yëpp bon di wax ne aussi avant may terminer di remercier sama benn xarit boo xam ne mu ngi si salle bi Momo Cissé euh, di journaliste bu mag boo xam ne euh, man dama ko respecté parce que jeune la waaye dafa dafa mun liggéeyam donc di remercier presse sénégalaise bi fi teew yëpp donc di leen wax ne la presse aussi ci logement sociaux yi lañ bokk parce que ay monteur ay ay bindkat ay ay bon ñoom ñu ngi secteur yëpp parce que journalisme moom euh, métier bu transversal la donc te tey mooy premier véhicule de la culture ñoom ñooy véhiculer tey culture dëkk boo bëggee xam dëkk bi lan moo nan la ñuy dundee nan la ñuy lekkee nan la ñuy naanee donc pour euh, dernier point bi mooy yokk euh, le nombre yi ñu leen di joxoon soma sànq bi ma waxee ma ne ko bon comme que 400 la dañ ko def 500 léegi nag li si des mooy euh, dinañu xool GIE wala groupement yi nga xam ne ñoom jotaguñu wax dëgg yàlla bu ñi jotagul ñi nga xam ne euh, yi trois fois yi ñëw yëpp binduñu si bokkuñu si ñu xool recensé ñooñu tànnaat bés ñëwaat fi mais pour le moment li ngeen ñuy mën a may mooy euh, dem nañu dooji barki démb ay war xoox dans la Linguère dem nañu ba Linguère yi fan avant boobu dem nañu dëkku euh, Passy euh, en décembre mois de décembre Passy la ñu demoon Passy maire bi fa nekk maire u Pastef la woon mais période bi ñu fay dem Pastef nekkagul au pouvoir mais moom cinq 500 lañ ko jox maire boobu mais jour boobu bi ma ko joxee Euh, dama ko annoncé président Macky Sall ma ne ko Passy la ñu njëkk dem parce que maire boobu Mbaye Niass la tudd jox nañ ko cinq 500 logements mais président dafa ne ma voilà ONG ni noonu la ONG di liggéey bu mu am xàjj ak seen jox leen ñëpp na Sénégalais yi am couleur amu ci lii ñëpp ñëpp ko bokk ñëpp ko moom. donc pour wan leen na rek tey la ñu gën a ubbeeku ci yéen mais nañu liggéey si organisation nañu liggéey ci méthode soo maa wax na ko aussi. bu ñu demee ba logement yi pare ba bañ jox leen kër yi par ordre d'inscription la ni ñu inscrire rek lañuy jox bu 500 logements pare ñu woo groupement bi jox ko noonu la ñuy def ba ñëpp am. léegi nag aussi logements sociaux bu ñu la ko joxee yàlla a le minimum mooy yéen boo leen waxtaanee seen biir xool ay cotisation ci coopérative bi ngeen di teg parce que da ngeen di teg coopérative coopérative boobu ci ngeen di mën a fexe ba yeneen logements yi aussi ñooñu mën a gaaw a am ay kër loolu nag waxtaan la rek yoo xam ne. parce que dañuy bañ rek jël kër yi joxe ko noonu gratuitement léegi moo tax il faut que ñu si xool volonté yi ñu fa dëkk ak ñi ñu koy jox bon participation yi par bénéficiaires yi loolu yëpp conseil d'administration bi moo ciy waxtaan ba teg ne temps la nga ay respecté ko pendant un an ou deux ans ou maximum trois ans mais de toute façon ONG yi moom ñun bu ñu jotee xaalis si bailleur bi bailleur bi yëkkati ay milliards joxaat ñu moom bailleur day wax ne kon ñii nee leen bu ñu fayati nañu arrêté maanaam bailleur bi moo leen di fayal mooy moo leen di tabaxal fayal leen bon donc bu leen fayalee ba pare léegi ñun dañuy demaat rek si yeneen logement tabaxaat yeneen noonu rek la def di continuer tant que xaalis baa ngi dugg rek ñun dañuy nekk di tabax donc bu ci nit ñi duggee dugg nañ ci loolu mooy plaisir bi ñu ci am waaye utuñu si beneen plaisir utuñu si xaalis utuñu si dara sunu liggéey la suñu mission la dinañ ko dox ba mu yegg ci kàttanu yàlla ngeen ñaan nag parce que fu ay mbooloo daje ñaan yàlla loolu yàlla la koy def donc maa ngi leen di sant di gërëm di remercier ñi fi nekk ñëpp quoi vraiment. merci euh,